bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala sayidina wa nabiyana wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu waaw ah, suñu wayjur suñu sëriñ suñu yaakaar jiite tey njaboot Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul Serigne Sidi Makhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ñun ñoo la indi noyoo sargal yokkute taalibe président de la république sa doom sa xarit sa taalibe yónni ñu fi pour ñu ñëw sargal la ci bés bi du rekk sargal la wante ñëw bokk ci bés yi bokk ci bés bi parce que président de la république Macky Sall dafa jàng ràññee ne Sénégal xëy na am na fépp ci àdduna wante fii ci senegaal daf fi am ñaari tànk ñaari taxawaay yu ko waay benn bi mooy ñi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo leen tànnal boppam ca la liggéeyal seen borom ci topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu may leen lam leen may yëkkati boobu ak taal boobu yàlla suñ borom ca mu waxee ca alquraanu karim ci leeram bu tedd bi nga xam ne moo koy jox ku ko soob ñooñu taal yooyu suñ boroom taal bu ñu ootee képp kuy doomu aadama rawatina ku suñ borom teg responsabilité jiite am réew nekk ci yow taxaw fa war na la wane sa jëmm ne ci nga bokk war na la sàkku fa ñaan war na la bés bii ak ki ko jiite suñu wéyjur suñu sëriñ di sëñ Sidi Maktar Mbakke ak njabootam ak njabootu Cheikh Ahmad Bambar radiyallahu anhu yal na yàlla yokk leeram mu nangul ñu suñu taalibe bés bi ci bés yooyu la bokk ñaareeli taxawaayam oote yi nga xam ne ñu ngi koy oote ci réew mi muy oote yu jëmmal doomu aadama yuy suqali askan wi yuy rafetal jëm yi ak ngëm yi mais di laaj également kii nga xam ne moom la yàlla teg ci ay loxoom réew mi mu am responsabilité jël bépp jumtuwaay bépp taxawaay moom ak ñi koy jàppale ci doxalinu réew mi pour wane ne réew mi bu ñuy wax laïcité compréhension biñ ci war a am moo di ne fii ci Sénégal réalité bi fi ne ah kenn mënta dem te jiitaloo kër diine yi. jiitaloo diine islaam boobu taxawaay mu ngi koy feddi ci sa kanam mbàkke yaa am wante def fi ñëw également pour fàttaliku démb ba muy wut réew mi yàlla suñ borom tabaaraka wa taala mooy joxe nguur qul allahumma maaliku mulk tuutil mulk man tashaa wante def ko am fu mu koy jaarale ma nettali rek ñaari xisa dama ànd ak président Macky Sall ñu seeti guddi ak Moustapha Cissé Lo suñu wayjur suñu baay suñu sëriñ suñu yaakaar sëriñ Sidi Maxtaar Mbacké ci yenn ci makkaanam guddi ñu dem seeti ko ba mu sàkkoo ñaan ba pare mu jël loxoom yu tedd yi téye ampoule ne ko maa niital ba ci oto bi moo jiitu niital président Macky Sall ba mu dugg ci oto bi ñaareel bi ñu fekk ko guy mbind ñu ne ko dañu ñëw sàkku si ñaan pour président Macky Sall pour élection yi di ñëw mu ne man de lu ma ñaan suñu borom mu may ma don fàttaliku démb bokk na ci li ko indi fii tey yónni ñu ñun ay ndawam ay compagnons de lutte pour ñu feddali kóllëre ci sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yàlla fi yàgg te pour yëgal ko ne fii ko yàlla tegg tey day fàttewul ne am na ñu ko ñaanal rawatina sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ñu ñëwaat fii parce que xam na ne ñaan yooyoo ko topp ba xalaat yi mu war doxale réew mi biñ ko yëkkatee ci senegal émergent yal senegal Sénégal jóg dem kaw jëm kaw noonu la tuddee programme bi bi mu demee bitim réew di fa sàkku ñi ko mën a gunge pour senegaal am jumtuwaay pour mën a jëm kanam àdduna yépp xam nañ ne président Macky Sall lépp lu mu doon wut bu dee benn am na ñaar walla ñett loolu ñaan moo koy tax beneen bi Sénégal ak li ko wër ah gis ngeen ne. ay menaces maanaam loo xamante ne lii yal nañ ci yàlla musal am na ñuy mbubboo turu islam te islaam wax dëggu yàlla senegaal islaam pour ñun du ñu jéggaani islam am nañ Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul am nañu ñeneen ñi mel ni moom wala boog ñu xamante ne ñii ñoom it liggéeyal nañ suñu borom tabaraka wa taala looloo tax ñaan seytaane yooyu di jóg ci turu islaam bañ a dugg mukk Sénégal ah loolu itam nee na ma naa tàllal loxo yaa ngi ci ñaan guddi ak bëccëg nga ñaanal Sénégal islam bii fi suñuy maam suñuy yaakaar àdduna ak alaaxira Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul def dañu ñu sëkk pour tase ak suñu borom tabaaraka wa taala topp ci ki nga xam ne mooy sang-sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne ma également am na benn feebar bu ñuy wax ah te mu am fële ca Guinée Conakry wax dëggu yàlla feebar boo xam ne gisaguñu lu ko mën a faj yal na yàlla def ba du dugg ci Sénégal ñu ñaanal réew mi jàmm wante itam mu wax ma ne man Macky Sall président de la République nitu jàmm laa nitu mbokk laa nitu kóllëre la man duma xeex doomu aadama wante am réew dafa am ñetti anam yu ko ngënk ki yore réew mi ñu di ko tuddee exécutif ñiy voté loi yi ak justice muy les juges anam yi ñu war a liggéeyee réew mi rafetal jikko yu rafet ci loolu rek lañ ko mën a sukkandiku mais kuñ ci jox alalu réew mi nga respecté koo xam ne alalu réew ah du parce que da nga yore ndomb tànk lu la neex nga def ci moo tax anam boobu muy ñaan ngeen ñaanal réew mi jàmm nekk ci xol yi ñun ñëpp ñu nekk benn ba kuñ ci joxati ëllëg nga xam ne am na loo xam ne yaa ko moom am na loo xam ne moomuloo ko ba boo ci jégee itam lu yoon di def ci ñu xam ne du xeex wante dañu war a rafetal jikko yi ba yàlla may ñu jàmm ñu développé suñu réew asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu